koy wàcce léegi léegi. waaw mais léegi nëb bii nag CDF la ne woon. info comme ni ngeen ko gisee rek TI info mi ngi continuer di wéy liggéeyam ngir rek jëm ci wàccaayu gàmmu gi ci noonu nag la ñu doxanti nag seet ci ki nga xam ne moom mooy suñu papa Ousseynou Diop ngeen xam ko bu baax xamee ko lool tamit ci li nga xam ne moom mooy li muy yëngu di ci jàppale nag gaaya waaye tamit di ci jàppale Sénégal yëpp rawatina nag gaaya daal di xewle nag mu daal di fi ñëw noonu la koy defee Touba Ndiassane ak yeneen i dëkk yi nga xam ne dëkku diine la rek yuy aye danañ ko fa amal kon nag gaaya gàmm moom bokk ci gàmmu yu gën a rëy ci Sénégal léegi kon jaadu na li ni mel daal di fi am muy waa UCG daal di nag ñëw ak seen ay matériel yu mucc ayib waaye tamit matériel yu yees indi ko nag fi nga xam ne moom mooy gaaye ngir rek aar nit ñi ci wàllu mbalit mi waaye tamit fexe ba mbalit mi mën a ko ak askan bi xam ngeen ni gaaye dafa nekk dëkk bo xam ne euh, mbalit mi bare na fa naam waaye nag ñu am jafe fi ñu ko jéene waaye li ko yóbbu sax nag seen i jafe nag ci jàngatam ak euh, li mu xam ni euh, dëkk na ko dund ko dëkk bi xam na ni lii dina amal njëriñ dëkk bi moo tax mu ñëwaat papa ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di kontaan nag di feddali suñu coloré ak yow si rek li nga xam ne mooy jéegu yu SONAGED di def saa su ne tey nga ñëwaat ak beneen ñëwin fii ci gaaye am loom loo xam ne askan wi war nañ ko yëg tey ban euh, matériel nga indil gaay euh, jërëjëf euh, Mayoro moo ñi ngi leen di nuyu di leen ziar Gaye Info di rafetlu aussi seen liggéey di wax aussi tamit am na solo seen liggéey pourquoi parce que dañ di vulgariser lépp loo xamante ni soxlay askan bi la te loolu dafa bokk ci maillon yi nga xamante ni ñooy associer la chaine de développement alors Gaye nekk une ville dootu village ville la ba ba pare nekkaat une ville religieuse pourquoi parce que daanaka bépp tarixa braqué nga tey ji sa bët ak sa xel ak sa gis-gis ci gaay ndax kan Seydi Hadji Malick radiallahu taala anhu tey kon dëkk boobu dafa nekk dëkk bu ñu war a ormal sur tous les plans euh, li nga xamante ni nag moom ordure la muy mbalit dafa nekk loo xamante ni àndul ak cet mhm. àndul ak diine àndul ak wér ñu war ci di veiller toujours dama koy wax ni mbalit dafa gudd fan mën na dund trois cents ans par rapport ak dund doomu adama doomu adama lu mu dund bu rombee cent ans wuy ji Mawlaana alors dëkk bi nekk une ville frontalière ak Mauritanie donc passage bi daf fi bari pèlerins yi aussi tamit bari fii macha allah war fee ñëw bon ñu war defoon benn clin d'œil ak le préfet le maire ak euh, le sous-préfet ci ndigalu président de la république mhm. ci ndigalu ministre de l'urbanisme ci ndigalu directeur général Khalifa Sarr de la SONAGED mhm. bon bi ñu ko organisé on avait mobilisé deux camions de vingt mètres ak une pelle mécanique mhm. lépp loo xam ni dépôt la woon d'ordures ci biir gaaya éradiqué nañ ko dindi nañ ko ba mu set alors léegi nag ñu war a dem ci gàmmu bu ñu demee ci gàmmu kii diir concentration humaine wax surproduction d'ordure mhm. alors moo tax ñu indi benn tasseuse bii nga xam ne moo ne suñu ginnaaw muy benn tasseuse su vingt tonnes mhm. war a ñëw fii incha allah associé ak la population ci seen ay moyens de bord yi ñu am mhm. pour que ñi ñi xam ni lépp loo xamante ni mbalit la chaque jour que jëfee nañ ko génnee ci dépôt yi nga xam ne moo leen gën a jege bu dee njorna la bu dee paal la bu dee bulay di la ainsi de suite bi ànd na ak une forte équipe de de de raclage et de collecte boo xam ne bu ñu xëyee ñooy ànd ak tasseuse bi fexe ba éradiquer lépp loo xamante ni mbalit la ci biir gaaya boole ko ak auteuru ay numaan ba mu jeex takk dugg biir njaareem lépp loo xamante ni dépoloma mbalit dinañ ko jël incha allah compressé ko yóbbu ko fi ñu ko war a yóbbu durant tout le gàmmu daal bëgguñu benn problème nulle part mhm. waa donc loolu daal moom mooy aujourd'hui sunu mission mhm. te dinañ ci taxaw incha allah ba remplir ko mhm. comme ni ñu ko waxee woon ci CDD ba ni woon préfet ñun travail d' anticipation la ñuy def mhm. yaakaar naa ba ñuy ñëw di def si clean day bi mhm. fekk nañu vraiment tout ce qui était problème a été réglé d' avance voilà merci waaw mi ngi noonu mën nañ si jàpp tamit ñi nga xam ne seen kër yi sore na tali bi sore na fi nga xam ne moom mooy euh, si euh, euh, site yooyu nga wax mhm. mën nañu jënd tamit ci tali bi fu tolloog tali bi rek bu fa oto bi jaaree lu fa fekk simbali den ko ramasser yóbbu merci beaucoup oto bi collecte porte à porte lay def d' abord lépp gox boo xamante ni am na yoon dafay jaar ba mu des biir gaay xam ngeen yéen a ma a xam ni mu bindoo woon mhm. ñooñu ñoom ñooy génn ci dépôt yi mhm. mais bu dee ci quartier yi nga xam ni paal bu lay di ainsi de suite mhm. dinañ ko aménager en sorte que dina fay man def passage pour que mbali mu ne ci kër yi nit ñi génnee ko mu jël ko dina def deux dina def deux rotations par jour dina klaxonner aussi tamit ñu xam ne loolu oto la parce que nag tey jii ni oto bi amee droit wala amee aussi tamit ñi nga xam ne ñooy la population dakaroise ñi nekk ba Dakar Plateau ni ñuy amee possibilité oto bi di leen collecteel la ñu amee possibilité oto bi leen collecteel parce que c' est une ville à égal c' est une égale dignité donc lii keneen bénéficier dañ ko war a bénéficier wu mhm. loolu tax ñu indi matériel bi auprès de vous kon nit ñi nañu discipliner ñoom tamit respecter horaire yi génnee seen mbalit ñu yóbbul leen ko voilà donc loolu aussi moom la mhm. ñu conseillé ñu arrêté di tour mbalit surtout nag je déplore la chose la plus grave mooy armeelu paal yi nga xamante ni mhm. fa la maam Alpha Mayoro tëdd ak yeneen wëlu yu kenn mënta lim ñuy jël mbalit di ko sotti ci kanamam loolu dafa ñaaw ñaaw dara man rafetlu ma ko te nag am nañu une convention avec la gendarmerie de l' environnement bépp nit boo xamante ne da def désordre dañ lay traduire te buñ la traduire dañ lay jël si dañ lay juger te bu ñu la juger xam nga la ciy topp kon nit ñi nañu am yar seetaan li ñuy def rafetal parce que dootuñu dëkk dëkkaan dootuñu village ville lañu lépp lu ville am am nan ko kon nañu gën ñun tamit jàpp su yëg suñu bopp yëkkati suñu bopp téye suñu alal téye suñu euh, dëkk mhm. vraiment loolu daal la ñuy vraiment demander à tout le monde pour que vraiment situation bi ñun ñëpp ñu ànd parce que booy defal ay nit mhm. dañuy xam loo di defal pour ñu mën la si jàppale voilà ah, noonu kaddu yi am solo nekk kaddu yi lay jaajëfal euh, sant bu baax waaye mhm. tamit yow ak équipe bi nga àndal ak sa équipe yi ngay indi yëpp ndax xam nañ ne yi ay lañu ndax façon bu nekk indi a baax di wax tamit ñoom seen aajo faju fii nga xam ne moom mooy si dëkk bu tedd bi yàlla defal fi jaajëfal ki nga xam mooy le directeur général Babacar Sarr yaakaar naa mhm. euh, moom la tudd moom nag nga xam naa ni gars yi la jaajëfal waaye moom tamit mhm. ñi ngi ndax budul woon moom lii doo kaxawaay euh, bii doo ko euh, am yéene bi mhm. waaye tamit moyen bi du mën a ndax oto boo xam ne ñi daw semaine wala lu ëpp semaine ci biir dëkk te laajuñu kenn carburant lépp moom mu def ko wax dëgg yàlla ñi ngi koy tamit yéen yàlla yokk ci li mu bëgg yéen ñi nekk tamit kenn dëkk bi bis bu nekk quarante tonnes warul mën nekk mbalit moo xam ne wax na war na nekk sax si dëkk bi waaye nag teewul oto dina tourner ngir mën jël li xam ne mooy mbalit moomu daal di ko jénnee ci dëkk bi oto gis ngeen ni mu mel bu xasee yàpp amul air sax du génn dara du génn kon li mu fi mu ko yabee day dem ba yegg fi mu jëm te dara du ci wadd kon nag mu nekk liggéey bu am solo boo xamante ne rek waa SONAGED daal dinañ ko yokk ci jéego yi ñu daan def nag ñu koy jaajëfal bu baax a baax naam liggéey bii muy liggéey liggéey bu am solo la waaye da koy defal dëkk yëpp dëkku diine yëpp dëkk goo xam ne rek ñi ngi def activité bi ni mel di dajale ay nit rek dinañ fa fexe ba cet mi gën fa ñeel kon nag ñu leen di jaajëfal bu baax a baax mbokk auditeurs yi di leen jox dox daje mm-hmm. a baax waaye nag Cheikh Fall Yaasa moom ñun ànd nag le modérateur Ousmane Fall moom nag mu ànd équipe depuis suba ba léegi di leen jox dox daje incha allah ak yeneen programme ak gars <laughs>